Yeah.

Sénégal une dina réussir prouesse extraordinaire Demain, ko dal ci lancé satellite ginnaw bi nga xamanteni succès la ci am ko ci vendredi 16 août 2024 ñu tuddé ko Gaynde Sat ginnaw dal lepp lo xamanteni duguna histoire rafet ci manière

kon ñoko gissando muy premier bijou bi nga xamanteni mo upp importance ci li nga xamanteni moy satellite bi Sénégal lancé jëmele ko ci Mamadou Sy Tounkara bi nga xamanteni jamono joju mo fi nekkon conseiller spécial bu président de la République yëkëti won xalaat bobu dal di koy xalaatal ki di président de la République tay mbégteem la woné ak bég bànneexam jëmele ko taal ci li nga xamanteni moy xalaatam Sénégal njëkk ko réussir fi muy premier satellite bo xamanteni mom mi di Mamadou Sy Tounkara lu mu ci tek ki di président Macky Sall de la euh, di président de la République du Sénégal atum 2016 ki di Mary Mary Teuw ministre en 2016 qui di Maram Kairé directeur agence spatiale bu sénégalaise depuis 2016 moom mi di Mamadou Si Tunkara conseiller spécial à la présence depuis 2018 qui di cher omar andy ministre depuis 2019 qui di Gawan Faye di enseignant chercheur coordinateur li nga xamante ni projet depuis 2021 qui di Ismaïla salle di ingénieur euh, chef du projet depuis 2021 mille ingénieur depuis 2021 Aïssa vingt ingénieur depuis 2021. mille Mamadou ingénieur depuis 2021. Moussa Fall ingénieur depuis 2021. Jean-Claude Joseph Badji di ingénieur depuis 2021. mille aussi Massamba Sarré Moussafa Diop Khadisek, Seck Ousmane Diop nyom nyop di ay techniciens depuis 2021 Amoul ben Yon un amul benn yoon engagé au nañ pour lancer l'ingénieur nga SAT 2 di première euh, li nga xamanteni moy satellite bu Sénégal bi nga xamanteni ni xalaatam la won mom Mamadou Sy Tounkara mu teg ko ci nopp ki di président de la République président dal ci xalaat ba tek ko tay mu dal di aboutir donc lolu fierté am la satisfaction am la donc tay kep kuy sénégalais da nga ko waroon rafetlu ñu magnifier ko ñi di nouveau régime bi dal di ci communiquer ba nopi dal di fessel image ak ni nga xamanteni moy ñom ñoom ñoo ci bokk muy ay sénégalais li nga xamanteni du début à la fin kiko ko xalaat sénégalais la ki jël décision bi sénégalais la Mamadou Sy Tounkara moo xalaat Macky Sall di président ak estafam ak ay ingénieur ak ay technicien sénégalais ñoko ko di réussir donc lolu tay ben satisfaction nationale la waroon indi jëmele ko ci xarañteefu ñi nga xamante moy doomu Sénégal ñi yëkëti leen applaudir leen partout mais njaaxare bi ñu ci am mooy bëppi ñu lancé satellite bi gisuñu ben yoon li nga xamante moy président de la République nii premier ministre am daal di ba sénégalais xamna ne que Li di Ben budget bo xamante tay ñepp ko wara saluer magnifier ko seen xalaat mais ci seen air la paré donc lu ñu waroon rafetlu mais ba tay ji kenn déggu ci dara te ay doomu sénégalais neen ñoko liggéey oui, le premier satellite Gaïndé Sat bi nga Sénégal lancé un